Serigne Fallou ci guddi suñu sëriñ suñu xalifa di suñu lépp tey nga ñëw ci fi nga daan ñëw muy njaboot Serigne Fallou tey nga ànd ak taalibe yi ànd ak jullitu yàlla yëpp tey di bis Serigne Bamba tey nga indiwaat da nga doon defee chaque année nga ñëw indiwaat ay xéewal tey fii ci kër Sëñ Fallou salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaax di leen balaax di sant yàlla di julli Seydina Mohamed sangub sang yi sant Xaadimu Rasuul Serigne Fallou Mbacké nun ñooy Serigne Fallou Thioub doomi Serigne Cheikh Gaynde Thioub Serigne Cheikh Gaynde Thioub nag Serigne Fallou la doon liggéeyal ba mu dolli ca tur wa Gaynde Thioub bi ko wàccee mu yabal ko Madina Thioub ca wetu Tëngéej muy Daaru Thioub di fi sëñ Moustapha Fallilu nekkee nag muy togg téeméeri dab màggal gone di ñëw di ko terale sëriñ Fallu ci kanam sëñ Moustapha bi yàlla doga ne sëñ Moustapha Fallilu wàcc liggéey sama baay wàcc liggéey sëriñ Cheikh Thioub sëñ Moustapha Fallilu boole noog sëriñ Mamor Mbacké Fallilu mi yore alxuraan yi léegi nu nit ñu ànd moom ca loola ba nga xam ne sëriñ Baara yor na liggéey bi ñu indi téeméeri dab yi mënuñoo gis sëñ Baara mu xaw ñu dallu ñaari at sëriñ Mamor nenu liggéeyu sëñ Tuubaa kenn du ko dallu jox naa leen ndigal ñàkk gis sëriñ beeg ñàkk a gis waxtu wu ne ki ngeen di defal moom mu ngi gis jox naa leen ndigal ñeen fukki ndab yi ab lim la boo xam ne bi man maa ko sàkku ci yéen at mu jon ngeen fi boobaak léegi it alhamdulilah rabil alamin mat na fukki at ay ceeb lañ daan def fii waaye defatuñu ay ceeb ah ñamu Tuubaa la ñuy def di ko indi ñeen fukki ndab yi di ko boole ak sunuy addiya di ko jox ki fi nekkal Serigne Fallilou muy Serigne Abo Bakara Baraka yal na fi yàgg te wér ak magam ju baax ji Serigne Mountakha xalifa général di Mouride yal na fi yàgg ak sëñ Mam ah, Moustapha Mamor doomi sëñ Mamor mi nga xam na sëñ Mamor daa wàcc ci liggéey mu jiitanu ndax ñun ci kër gi rek lañ ne bañ xàmme koo ba léegi kër sëñ Fallou rek lañ kon ku fi ne rek doy nan loolu daal moo indi liggéey bi tey ñu fas ko yéene jébbal si di ko ña mu yàgg nu ñu yàgg fi téwér di ñaan nag Serigne Touba lim li yéene ci bis bi ba digal nu ko yal nañ daje ngërëmam barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam barke Xaadimu Rasuul barke Sëñ Fallu salaamaaleykum noo gisee liggéey bi Leral TV def ci màggal bi liggéey bi ñu def ci màggal gi déployer les moyens ànd ak équipe bi ñëw ci buntu kër Serigne ñu nekk dalal gan yi di waxtaan ak gan yi waaye tamit di waxtaan ak taalibe yi waaw moom day wax dëgg télé yi bari na waaye nag boo fexee ba agsi ci moom bu fekkee déglu sëriñ bi ak ñi fi nekk maanaam di wax li sëriñ bi doon liggéey sa xol sedd deetoo fi jóge te nag dañ koo boole pas-pas ndax liggéey bu amul pas-pas li tax mu neex pas-pas bi la muy guddi nag muy bëccëg xam naa ne man xam naa ne lu jiit màggal gi ñaari fan ba ñett ba ci tey jii wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin dañ leen di ñaanal daal mu yokk tey yàgg tey yàkkali ko fu ngeen yeen liggéey bi àgg fa liggéey bi weesu te liggéey bi moom mooy fu sëriñ ba rek ngeen àgg fa ak liggéey bi barke borom Tuuba jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Thierno loolu la woon ñu ànd ak euh, Serigne Fallou Thioub mu ñëw ci njaboot Serigne Fallou wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne si nii boobu ba léegi moo ko doon def waaye tamit biñ jëlee cër bi jox ko wax dëgg yàlla bàyyiwu ko mu ngi boole ànd ak taalibe yi ànd ak julliti yàlla yi ànd ak am di jàmm yi ñëw di feddali kóllëre gi nga xamante ni ay way juróom defoon nañ ko si njabootu Serigne Fall kóllëre googu lay feddali ba tey mbokk yi ñun la ak yéen ak Leral TV Leral point net ànd ak suma xarit Thierno Kane mbokk yi di leen jox di daje beneen yoon ak Leral TV Leral point net jërë ngeen jëf mbokk